salaamaaleykum amante not Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di am mbégte di leen ñaanal jàmm uh, di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi di amaat mbégte jàkkaarloo ak yéen émission mag bi di Dakar Buzz social jógaat na sol dàllam waaye di gën a sant yàlla rek ci ni ngeen ñuy toppee di nu ñaanal di sant yàlla it ci ni ngeen di jëlee seen koppar ak seen xam-xam ak seen ñaan di ko participer ci émission bi gis na nu ñaan gis nañu lépp yàlla yàlla taxaw leen sàmm leen. te defal leen tawféex yéen ñëpp rek fu waay nekk rawatina nag waa diaspora bi nga xam ne daanaka émission bi soom seen émission la ah, ñëwaat na tey fii ci Kër Massar ah, unité 6 seet si sunu frère boo xam ne teraay bi yàgg na mu defoon soog depuis 2014 teraay bi yàgg muy soutien de famille yor soxna yor ay doom yàlla def na nag mucc na ci soog bi mu ngi toog ni war a waxtaan a ñun mais li ko gën a sonal mooy problème mu massage yi ci ci kon financièrement dafa xaw a dem ba li mu yoroon lépp mu jeex ma leen ci yaakaar nag ci ngeen ko tàmbali defee rek kon dama koy bàyyi mu nuyoo ñu waxtaan ak moom ku baax ki maa ngi lay nuyu. waaw ah, waaleykum salaam grand na sant yàlla bu baax maa sant bu baax. tur bi nan la. El Hadj Ousmane Diop El Hadj Ousmane li lii bi nii nan la dikkee. waaw dama doon liggéey maçon dama doon liggéey maçon waaw ma daanu ma daanu am problème ci sama loos bi am problème si laa jëlee paralysé. sama yaram bi yëpp fenn doxatul fenn doxatul ah, presque tëdd rek laa doon def waaw ah, si lañ ma yóbbu hôpital Fann opéré ma waaw ah, nañ ma opéré hôpital fan waaw. léegi fi nga doon liggéey ñooñu jëluñu la woon en charge wala amul woon assurance wala dara. non amul woon assurance santé buñ beneen waaye buñ ma boole woon la rek waaw mu jëloon ma liggéey comme liggéey journalier waaw ma koy liggéeyal fa ndog bi daal ma fa quoi du ay liggéey entreprise ndog bi daal ma fa accompagné na ma ba hôpital. mais amaana tamit moom it dooleem bëriwul jour boobu am na lu mu fa taxaw mais après par la suite xam naa dooleem bëriwul daal waaw affaire yi xawoon jafe tamit trop trop yàgg ndax 27 octobre 2014 la woon quoi waaw. loolu bu ma juumul léegi mu def 6 ans. waaw 6 ans fii fan rek mu mat juróom-benn at fan. six ans nga tëdd ko di wéyale xeetu douleur bi nan lay mel. waaw métti woon trop métti woon na trop ndax bu njëkk ba tëdd rek laa munoon. fu ma doon tëddee falaa doon defee lépp fa lañ ma doon sangee fa lañ ma doon defaree lépp munu moon yëngatu mënu moon bouger mais may topp di def traitement yi mais traitement yi dafa xaw a métti Kër Massar laa dëkk ak fan transport oto bi day métti traitement bi day métti traitement bi dem na fajootuma normal daal fajootuma ndax maa ngi toog tey ma am dem suba ma am toog heure yi ma war a gisanteeg médecin bi du ma gisanteeg médecin bi suñ ma waroon defar rajo duñ ko mën ndax du ma dem hôpital lu bëri man daal may bëgg daal bonne volonté jàppale moom ma faju waaw ndax yor naa soxna yor naa ñetti doom tay xale lañ te man daal maa leen war a taxaw daal moo tax ma bëgg a daal ndax toogaay bi yàgg na trop. boo dee hôpital pour dem rendez-vous lu ci ëpp ñaata nga yóbbu. waaw normalement xanaa hôpital sa rendez-vous daal di nga financé benn quinze mille francs di nga ko financé te hôpital deux fois nga war a dem ci semaine bi nga war a def kiné kinésithérapie laay def hôpital Fann waaw muy nuyuwaale sama médecin bi tam daf may jàppale bu baax tamit daf may jàppale. daf may jàppale bu baax tamit foofu wax dëgg fa na daal am naa yaakaar ne su may kon na doon su ma toppoon rendez-vous am naa yaakaar ne dinaa dinaa wér ndax bu njëkk ba tëdd rek bi mu fay dem tëdd rek laa mënoon te dem naa bay di jàppandu tuuti tuuti di di doxantu ndax sama loxo yii nii mënul woon yëngatu yii nii yii nii mënul woon ndax mënu ma ko tourner mu ñëw fi sama ginnaaw tànk yi tànk yi nii dara mënu si woon jug daal mais léegi daal alhamdulilah waaw waaw maa mais daal du ma du dem lu bëri du dem massage lu bëri damay toog ci kër gi te nu ma waroon toppee traitement bi tam topp ma ko waaw ndax waroon naa ko topp di gisanteeg médecin bi mu may xool di ma di ma lu ma war a bindal mu bindal ma ko mais daal damay toog ci kër gi ay 3 mois duma dem hôpital 4 mois waaw lambatu naa fu nekk daal mais jafe na trop te bi moom xaw na doy waar tuuti si man doy na waar trop. Hmm. mais li nga gën a soxla fi ni mooy ku la dimbali ci wàllu massage yeeg yooyu pour nga mën koo eggale pour activité ba nu ubbiwaat. waaw waaw ku ma dimbali daal taxawu ma ci wàllu faju bi waaw ma faju ci massage bi taxawu ma bu baax ndax dafay yàgg ko waaw ak oto oto transport tamit ndax Kër Massar ak Fann tamit dafa xaw a métti waaw dafa metti ndax dangay dem tey toog suba dem tey toog suba dem toogaat trois mois doo dem day dem ba faju fajuwuma daal ci gàttal fajuwuma waaw fajuwuma fajuwuma. six ans nga tëdd ko sa soxna noo muy dundee ak wewut fa loolu. waaw mu ngi may jàppale bu baax wax na yàlla mu taxaw bu baax ndax gënoon na métti nii mu may moo may defal lu bëri moo may sang moo may defal lu bëri mi ngi toppatoo dem xale yi wax dëgg na yàlla mu ngi may jàppale gënoon na métti nag gënoon na métti am na ab boo xam ne fu ma tëdd rek laa mënoon tëdd mais léegi maa ngi sant bu baax daal maa ngi sant yàlla bu bëri ci lu bëree bari maa ngi ci sant bu baax. xanaa bi ngay daanu takkoo ceinture ci kaw wala non non non amuloon ceinture sànce bant yi la rek ay bant nañ tegoon bant bi rës ma daanu sama loos bi kii période boobu daal métti na daal métti na trop. Mhm. lan ngay wax aussi tam sa mbokk maçon yi nga xam ne ñu ngi liggéey ci risque yu mel noonu bu bu ñuy mel noonu ni mën a takk seen ceinture parce que loolu moo indi lii lépp. Mhm. waaw di leen wax ñu moytu rek di leen wax ñu moytu rek mais xam nga yenn moyens la gaay dul am pour am yenn safo safo yi quoi moo tax te munoo toog bañ a liggéey. waaw di leen ñaan ñu moytu rek wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ tamit tamit quoi waaw Alhaji Ousmane Diop Alhaji Ousmane Diop. jërëjëf mbokk yi dégg ngeen lim ci wax lépp Alhaji Ousmane Diop di suñu frère di jeune nekkoon ku activité di dem ak a dikk tey jii yàlla def gis ngeen lii ko dal ci accident ci travail la ko jëlee liggéey ci liggéey la ko jëlee loo xam ne dégg ngeen lim ci wax da doon jóge ci kaw daanu muy lu doy waar. loo xam ne ndogal la ndogal la ñëw ci kawam mais daal bëgg naa ngeen jàppale ko ngir yàlla soutien de famille la kilifa la borom kër la ku yor soxna yor ñetti doom boo tëddee six ans amul la gënal te nee na mi ngi sant yàlla bu baax ndax gënoon naa metti ndax koo xam ne fi nga tëdd fi nga daan tëdd fi nga daan defee lépp ñu lay sang tey yàlla def na tey ñu ngi ko fekk mu toog ci puus puus kon sant yàlla waaye li ko gën bàyyi ci kër gi mooy manque de moyen pour respecter massage yi ndax ku ne xam ne ni massage mooy liy delloo sa yaram fa mu nekkoon pour nga mën a doxi say soxla ma leen ciy xaar rek ngeen dimbali ko te yàlla tax lu ko waaye mën a dimbalee ba mu mën a continuer massage yi dellu ci activité mën a taxaw njabootam mais taxaw soxnaam loolu yaakaar naa leen ci bu baax yéen ñi nga xam ne yéen a yàgg def lu baax ci vidéo yi nga xam ne mooy Dakar Buzz social bi di ci gërëm di sant nag mais daal yaakaar naa leen ci tey jii euh, tey jii lan nga wax ñi lay seetaan te bëgg laa jàppale. waaw di ci di wax ñëpp di lancer ñëpp appel rek pepp bonne volonté rek boo xam ne mun na ma taxaw ci feebar bi du ma citer kenn mais képp ku ma mun a jàppale rek mu jàppale ma taxaw ma ma faju daal ma faju mën a wér mën a nekkaat ci activité daal képp ku ma mën a taxaw rek mu taxaw mu bu baax a baax waaw di santaale tamit sama xarit yi quoi ñi dëkk ginnaaw raay ak ñi dëkk fii Kër Massar waaw seetaanuñ ma quoi ñu ngi may jàppale ak sama grand yi ak sama frère sama rakk quoi ak sama soxna tamit aw ma fayam wax dëgg fa na yàlla boobu ba tey moom sonalu ma ci dara wax dëgg fa na yàlla waaw mi ngi bokk ak man lépp sonalu ma daal ci dara daal mi ngi may jàppale bu baax di sant tamit sama grand frère yëpp wax dëgg fa na yàlla seen doole bariwul mais ñi ngi may taxaw ak sama copain yëpp maa leen di sant ñoom it tamit bàyyiwuñu benn yoon daal waaw di sant ñëpp daal kontaan naa jërëjëf. di sant ñëpp la wax ma leen di fàttali li nga xam ne mooy plateforme Dakar Buzz bi bi nga xam ne dañ ne bépp sénégale bu ne loola yàlla dénk. te nga mën cee def nga def ci muy numéro bi nga xam ne moom la affiché ci barre écran bi noonu muy 78 601 onze 11 di numéro boo xam ne nit ñi tàmbali nan di ci dugal seen i dërëm ak seen i ñaar dërëm loolu moo ni permettre bu ñu jóg di seeti nit mën cee tibb mën koo jox loolu ñu ngi leen ciy xaar di ci xaar ñëpp nag ndax gis na ni ngeen ciy participer dërëm ñaar dërëm junni ba lu waaye am rek dénkaane sunu borom la lu ci waaye def yàlla da lay ñun buñ ko jotee dañ ko joxaat jaamu yàlla yi kon ñu ngi leen ciy xaaree ñëpp du tee nag numéro am dinañ ko affiché pour lu ko waay mën a dimbalee mais ma ci gën a insister rek ci bonne volonté yi nga xam ne lu baax leen taxu jóg ñun ko jàppale dimbali ko comme yàlla def na gënoon naa métti ba fu mu tëdd lay def lépp tey jog na ba mën a toog chaise problème bi mu am mooy respecter rendez-vous yi kii ni ci dem pour def massage yi te ku ne xam ne ni Kër Massar ak hôpital Fann jegewul booy dem di nga jël taxi aller retour soo demee di nga dagg dagg ticket massage loolu xaalis a koy def ma leen ciy xaar rek ngeen dimbali ko te yàlla tax te xam ne ko ko dimbali yàlla moo rek ki lay fay nan nga gisee émission bi Dakar ba Social tey seet si la pour waxtaan yow pour solution am. waaw waaw damay seetaane seen i vidéo quoi am na njëriñ trop sama benn xarit sax moo jox seen contact pour ma waxtaan ak yéen waaw moom ma wax daal demal demal demal demal daal ñu jël ñu jàppale daal waaw moo tax mais wax dëgg fa na yàlla vidéo yi may gis moom am na njëriñ te mu ci gis ay solution yi daal mu ci gis solution daal moo tax. ma maam ci yaakaar ñoo bokk ginnaaw dem ndax man ginnaaw raay laa dëkkoon après ñëw Kër Massar waaw ginnaaw raay laa dëkkoon ñëw Kër Massar waaw kontaan naa wax dëgg fa na yàlla ci taxawaay bi di ñaan yàlla rek yàlla mottali lii ba soog bi deñ ko feebar bi deñ incha allah waaw yittewoo naa ko trop toogaay bi yàgg na trop si man trop trop trop trop si man wax dëgg fa na yàlla. depuis six ans toog ci kër gi nii rek day metti waaw metti na trop wax dëgg fa na yàlla hôpital laay dem ñëw toogaat sama kër xanaa xarit yi ñëw ñu toog naan ataaya ci biti sama copain yi moom chaque jour chaque dimanche fii nañuy naanee ataaya moom wax dëgg fa na yàlla tout le temps dañ fi nekk fi nañuy seetaanee football lépp waaw gars yi moom wax dëgg fa na yàlla aw ma seen fay waaw ñi ma mës a seqal yëpp wax dëgg fa na yàlla musuma gis ku regretté quoi c'est que affaire yi xaw a métti rek wax dëgg fa na yàlla waaw sonn nañ di santaale tamit sama famille maa ngi leen di nuy nuyuwaale au passage tamit quoi di nuyuwaale di nuy suma grand frère yëpp tamit sonn nañ ci man trop tamit wax dëgg fa na yàlla. Mm-hmm. séerulante bi ku la ko jox. c'est résilient sama benn xarit moom mu ko jëndaloon waaw mu ko jëndaloon mais pratiquement maa ngi doxantoog su ma euh, bekkee bële quoi su ma bekkee quatre pieds bi laa yor presque bi pour dama ci toog nii rek pour toog quoi mais nekkatul lu mooy utiliser daal waaw maa ngi commencé di am mobilité tuuti maa ngi def marche tuuti tuuti quoi moo tax am naa yaakaar ne suma ma fajoo rek dinaa mën a wér daal waaw te rassuré lañ ma loolu tamit quoi wax dëgg a yàlla. El Hadj Ousmane su ma ko wax lim gën a bëgg lan lay doon. waaw mooy wér rek dem liggéeyi quoi ndax loolu la jeunes yëpp bëgg wér dem liggéeyi quoi ndax lépp li nga bëgg amal sa bopp rek sa liggéey moo la ko mën a may waaw waaw jaaxle moo tax sax ñu ñu toog ba 6 ans yi ñu doog ñu gis mais yàggoon nañ ñu proposé xawoon nañu rus a génn ci média bi mais dafa yàgg daal te toogaay bi di soo fajuwul doo wér soo fajuwul doo wér wax dëgg fa na yàlla loolu sama mbebet dëgg-dëgg daal mooy wér dem taxawi suma njaboot ak képp ku ma mën a dundal rek wax dëgg fa na jërëjëf mbokk yi xarit yi lii mooy seen émission Dakar Buzz Social fii la ci Kër Massar tey unité 6 man ak moom muy El Hadj Ousmane di koo xam ne boo ko jegewul sax ah, doo xam dëgg-dëgg li muy jànkonteel muy gor du nit ku baax nit ko xam ne mënta yuuxu mënta jàmbat mënta ñaan mais mbir day toll foo xam ne faw nu wax ko pour nit ñi mën cee dugal seen loxo ma leen ciy xaar nag te xam ne ni ngeen koy tàmbali defee rek kuy def te yàlla tax bàq bi tooy na ku ji di nga góob lebaleen yàlla ku lebal yàlla yàlla fay la seen émission Dakar Buzz Social la ci micro bi Fadal mi ngeen tàmm di gis la ni ci ànd ak yéen cadreur bi Seydou la ànd ak Ahmed le grand cadreur moom tam tey muy ànd ci may ñaan yàlla def jàmm ci réew mi waaye di leen ci xaar rek ngeen participer ci ci El Hadj Ousmane sunu bi di leen fàttaliwaat sunu plateforme bi nga xam ne mooy 78 601 11 onze di code boo xam ne compte Dakar Buzz la lu ci waay tàbbal ko dajale bu ñuy jóg seeti nit xool liñ ci mën génne ko. mais El Hadj Ousmane ñu ngi ñaan yàlla yëkkati la yàlla wéral ko mais xaar nañ leen ci daal jërëjëf Dakar ba social yàlla na ñëpp am jàmm jërëjëf.